di xamal ne rek tey dañoo wa woote woon pour woote budget commune de Touba bu année deux mille vingt ñu woote ko le vingt six décembre euh, deux mille dix neuf ngir que mooy li ñu natt war ko liggéeyee ci année deux mille vingt bii mu war a tàmbali le premier janvier deux mille au trente et un décembre deux mille vingt donc ñu xayma ko ci quatre milliards neuf cent quatre dix huit mille. dix-huit mille deux cent seize francs quatre milliards neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions dix-huit mille neuf cent seize francs donc loolu la ñu wate budget commune de Touba conseil municipal bi wate ko à la l'unanimité ci recette et dépense équilibrée ci devant le monsieur le sous-préfet de Ndam et le percepteur des départements de Mbacké ci sur 100 conseillers on est à 69 ñoo teew ñoo watee budget bi dañu def orientation budgétaire dañu dugg ci quartier ci population xool lan def nga gis nga réunion publique yi ñu doon wax léegi yi ñuy def ci quartier yi dem xool lan moo fi fii lan moo fi gën a lan lañ gën a yittewoo li nga xam ne moo ëpp solo ci ci ci suñu budget 2020 mooy euh, tali bit route Bitimas bi nga xam ne dafay jóge Madiana jaar bu baar Moubarak dem Saam sëñ Abdou Latif dem Saamu sëñ Baara Khourédia boobu torson nga xam ne euh, yàlla dogal na ci appui euh, ci pakaseen bi ñu ci am renfort danañ ci renforcer suñu budget moo ñu permettre ñu mën a def à 6 7 kilomètres boobu nga xam ne c' est une route à bitumer boo xam ne foofu lu askan bi soxla ndax gis na ku nekk gis na bu nawetee rek ñoom dafa mel ni ci ci dañoo génn ci dëkk bi ci euh, pour dem fa ak euh, oto wala dem fa ak sareet dana jafe loolu moo doon li gannaaw loolu ci sécurité bi gis ngeen ko ak ci ci ci ndox mi addition d'eau bi ak éducation ñett yi dafa nekk lu am solo loo xam ne dëkk bi prioritaire la ci dëkk bi yoo xam ne dara dara gënu koo farata donc moo tax ñu jël pàcc bu nekk jël nañ ci dugal ci ah, ci ndox mi dugal nañ ci xaalis bu am solo pour que addition d'eau bi pour périphérique bi ñi nga xam ne ndox àggugu fa ñu mën a am ndox mais ci sécurité publique ku nekk gis na ni mu demee ci dëkk bi moo tax éclairage public bi dafa bokk ci sécurité publique moo tax ñu privilégié ko dugal ci xaalis bu baree bare bare ngir éclairage public bi mën a yaatu ngir sécurité bi mën a dem ci éducation bi aussi gis nga ko li ñu ci dugal ak santé yooyu daal mooy prioritaire yi nga xam ne def nañ ko parawaat nañ ko ci bis 2020 pourquoi ñun rek ñoo am 9 milliards 130 millions ci PACASEN parce que parce seen bul fàtte ne avant muy ñuy ñu bu ñuy ñëw dañoo def benn audit ci lance ci communes yi Sénégal yi communes yi nga xam ne yaakaar nañ ne seenu doxin transparence na rafet na amuñ épingle leen ñooñu ñooy bénéfice wu ci PACASEN te ñun bi ñu defee audit yi euh, plusieurs audit yi fi jaar wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi rafetlu nañ ne ñun suñu section wax dëgg yàlla c'est transparent